léegi nag grand damay ñëw xam naa dañuy ñëw ci jeexintal bi rek maanaam tey làmb ni muy doxee fi mu nekk nii làmb ji taxaw na gaa yaa ngi wax pay per nangam sàngam wii kuloo lu nekk ñu ba mel ni sa kilifa ndax ku ne xam na leen yéen ñaar muy Gaston Mbengue jàpp na le le 4 pour war ko tëgg ci diggante la de ak ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène tey làmb ji jamono ji muy dund nii noo ko gisee. jamono ju metti torop ci làmb gis nga Babacar tàkkusaan yi comme yu mel ni boobu ma la wax léegi muy Yékini ak euh, Balla Gaye mhm. wala Tyson Yékini wala mhm. wala Tyson euh, Bombardier mhm. euh, wala Tafa Gueye Tyson tu vois ay takusaan yu nga xam ne yu rëy wala Gris Bordeaux Eumeu Sène ah Balla Gaye nu mu tuddati Modou Lo ay tàkkusaan yu nga xam ne boo doxee ci mbedd mi waxtu woowu noonu doo gis picc ñépp taxaw di seetaan combat bi ku eggul sa kër yaa ngi xool place bu am tele nga taxaw fa seetaan mhm. kër yi boo demee ñépp a ngi toog ci tele werante bi mel ni xuy loolu tàkkusaan yooyu nit ñi dañ ko namm mhm. te dafa bokk ci li nga xam ne mhm. euh, day dundal réew mi te jamono jii ñu toll metti na metti waay bu nga xam ne làmb bokk na ci li mën a désamorcer pression ak tension bi ñuy dund ci réew mi mhm. donc coronavirus dafa ñëw kor làmb ji rek. waa sûr waaw da koo kor rek. Mhm. Euh, too koo bàyyi too bàyyi lépp nag mais ñun làmb moom ñoo ci gën a dee ba dee daale. Mhm. ndax football a ngi fubal. course baa ngi dawal. <laughs> Euh, basket baa ngi basket. athlétisme baa ngi dem ñeneen ña ñëpp a ngi def. làmb rek moom moo amagul benn tàkkusaan depuis plus de dix mois. c'est long. dafa metti dafa yàgg waxtaan bi tamit pour man dafa yàgg waaw parce que aussi Babacar saison bi mu ngi jeex de. waaw bien sûr. xam nga février la ñu nekk. Ah, bien sûr février bu nuyoo tàggoo na. waaw waaw jeex na tàgg. dafa gaaw a jeex vingt huit jours la. février nga dugg mars. Mhm. avril ñu woor ñu woor. mai juin moo fi des te léegi nawet bi yaa ngi ñëw ñuy wax waxi nawet ba léegi hmm. boo ubbee saison bi ñooñu di nga leen jox date bien sûr waaw loolu ñi nga xam ne demuñu woon régulariser hmm. nga jox leen date nga jox leen date date yooyu yëpp ak combat yooyu yëpp ponkal yëpp am nañu combat gris rek a fi amagul combat ponkal yëpp am nañu combat gris doo nga des waaw ko ponkal yëpp am combat et on a que des combats hmm. waaw combat yu mag rek la ñu am ba ci Vox Arena. Mhm. tàkku saanam yi mu taxawal nii. <laughs> ñëpp di ko xaar ñëpp di mais ay combats yu nga xam ne c'est des combats de feu. ay combats amateurs yu nga mhm. xam ne gars yi dañ ko yàkkamti kenn mhm. xamul ci diggante ñi ngeen boole kan moo ci daan. parce que ay ndaw lañu yu màggandoo ba làmb boole leen ñu ñu runkum daje. loolu yëpp nit ñi yàkkamti nañ ko mais ba léegi kenn xamagul kañ la ñuy bëree. gasoox kay daa dëgër fit rek. xam nga sama père moom. moom moom moom bu bëggee def dara moom. il fonce. waaw moom moom ragalul moom moom c'est le fonceur. moom ragalul. te it li mu tëgg. li mu yanu bu balaa am jàmm da ko yenn Gaston commencé naa def teaser. Gaston commencé naa def ay bande annonce. Gaston commencé naa signé ak télévision yi. te làmb ji ubbeegul. <laughs> waaw moom moom fitam lay doxee. fitam lay doxee jàpp na dat. te mhm. kenn joxeegul dat mhm. donc euh, voilà il faut que. mbir mi ubbi. Mhm. et Gaston ak expérience ak yàgg bi mu yàgg ci làmb mhm. moom moo war a nekk le précurseur c'est-à-dire dañ nekk ci jamono ji nga xam ne il faut kenn jël risque. jël risque xale yi ñemewuñu loolu ñemewuñu jël risque ci moment bi mhm. ni dañuy def huis clos ak tout ce qui s'ensuit te xamaguñu accompagnement état bi ñaata lay doon ak fan lay toll. te boo defee investissement da nga bëgg a am retour d'investissement. bu fekkee dañ leen ni defal làmb huis clos wala wàññil la fay dugg manque à gagner boobu kan moo koy fay ñaata lañ lay jox ñaata nga dépenser ci sa làmb est-ce que di nga ci génn est-ce que système pay-per-view dina tax nit ñi euh, euh, def rush ñëw pour jënd combat yi mm-hmm. il y a tout toutes ces équations mm-hmm. yu nga xam ne boo ko résoudreul mënoo dugg ci làmb ji mënoo jël risque ni dangay tëgg Gaston nag ku ñemee dañ laa déy mm. Gaston bu ñemee tëgg am na fu wóor fu mu teg tànkam. fu mu maanu. ni la booy xeex lëndëm nii rek. booy xeex silmaxa. waaw. mu la nañ for xeer. sànnente ko xamal ni jàpp wu xeer ba pare. <laughs> kon daal per am na fu mu taxaw na tànk teg na tànkam ci xeer bi ba pare. parce que jàpp na datam ah, yow. ku jàpp na ku jàppul. <laughs> jàpp na boobu. <laughs> ñëw na sore ñëw ba pare. te combat bu tol nii. waaw ah, presque yow un mois moo si rek waaw que février ñu ngi. waaw février man dama koo boolewul ci weer jeex na février <laughs> boolewul ko ci weer nga moo si des. mois moo ci des. Mhm. nga di euh, nu mu tudd Eumeu Sène Lac 2 acte trois waaw dañ koy sëgg. Modou Anta Diène Modou Anta Diène Kaïré le 4 avril nga koy tëgg. gas bu demee ba jël dat hmm. ba commencé def ay signature signé na ak. ak ak ak 2S. waaw day signé ak RTS. Hmm. day signé na ak ñun. gis naa ko kay waaw waaw kooku kay xam nga ni il avance lentement mais sûrement. bien sûr te ku ñeme dañ laa dey moo tax ma ne la booy xeex ak silmaxa. waaw mu ne la nañ nañ jël xeer xamal ni dégg na ci xeer ba pare. dégg na ci xeer <laughs> am na solo grand frère macha allah waxtaan bi am na solo grand frère tey moom plaisir la ci toog ak yow waxtaan ak yow nii macha allah nga wax ñu lu yaatu donte sax xam naa ne wax ji du doy parce que temps bi mayewu ko loo ci mën a dégg daal am nañ contentement bu baax a baax a baax ci yow xëy na nag euh, bëggoon naa rek ñu jeexal ci sa diggante ak promoteurs yi parce mel ni Gaston moom yaakaar naa am nga relation bu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër waaw sama euh, digganteeg même Luc Nicolaï waaw gis naa seen digganteeg moom xam nga man euh, yàlla dafa dogal bu may eh, liggéey ak nit mhm. la nga signé ak télévision bi mhm. dinaa ko respecté mhm. mais leneen la nga xam ni man sama wàllu bopp maa ko war a def dinaa def ba def yow loo foogul okay. cest dama lay gën a bëgg yow li nga tëgg dama ciy dem ba jeex père Gaston dañ doon dem bay xuloo mun ma yow yaa joxe sa xaalis wala man maa joxe sama xaalis yaa tëgg laa mujj walla baa maa ko tëgg man ko père yaa ko tëgg mais defuma li nga wax lii lay def mun ma bon d'accord defal lu neex bu ma defee ba pare mu ni mhm. gongo ñuy liggéey ci loolu te musuma taxaw ni ko per problème bii laa am mhm. donc dama doon liggéey ak moom avec beaucoup beaucoup de passion beaucoup de détermination beaucoup d'engagement mhm. ba saison bi jeex des fois Gaston daan na ma daan nañ dem mu indi ma wàcce ma suma buntu kër guddi barke Serigne Babacar du ma yor dépense sama kër mais du koo xam musul xam sama soxla ba làmb ji jeex Aminata Mbengue Ndiaye ma sœur maa ngi koy nuyu madame le ministre ni ko waa Gaston yow Malick Thiandoum loo ko defal mun ko noo defaluma ko dara mun ko say mbir ni mu ciy sonne war nga ko defal lu ñëpp teg seen bët si la Gaston jël caabi oto may mag oto bu ma njëkk a amal som bopp Gaston moo ma te du lu ma ko ñaan mais dafa xool liggéey bi ma ko defal ay hmm. mbokkam ni ko kii war nga ko defal dara mu defal ma ko Luc Nicolaï c'est mon ami et je l'assume sama waay la hmm. c'est plus qu'un frère hmm. te ku gis li ma daj ci bu mu nekkee ci ay xat-xat nga war a xam ne am na lu ñu seq lu dul làmb mhm. liggéey làmb ak RTS moom moo ma boole ak Luc Nicolaï mhm. mais ci suñu biir compa du ñëw dund lu nekk mhm. ci bànneex ci naqar suñu tàkkusaan ja nga xam ne ca ndar bi ñoom euh, Mama Ba ak ñoom père Alioune Seye di accidenté Euh, bi ñuy dem Tamba lu fu ne dem nañ fa man ak Luc mhm. takku tàkkusaan bu ne ànd nañ ko liggéey mhm. dans la fraternité moment bu difficile ñu dem ñu ubbil ñu tiroiru morgue bi ñu gis gaa yi faatu keroog li jóge ci li ak li jóge ci man kenn xamul nu mu toll mhm. donc yooyu yëpp dañ ko dund mu am rapprochement bu am suma diggante ak moom mu jóge Mbuur ba ngaay seet si ma ñu tuddee ma làmb mu jóge mbuur ba ngaay promoteur yu mag yëpp moom kese moo ci jóge mbuur ba ngaay mexe gëma dëkk ñëw sagal ma ci suma kanam yi mbokk mm-hmm. kon kooku c'est ton frère mm-hmm. bu nekkee ci jafe-jafe mm-hmm. man lu ma mën dama koy def te la ma man yëpp def naa ko te du lu nga xam ne tey mën naa la la ni duut baaraam comme ni ma ne la Gaston moo ma may oto bi mënuma la ni Luc moo ma jox lii mais c' est quelqu'un bu nga xam ne c' est un frère parce que Sénégal dañ doy waar Babacar. Mhm. tey jii bu ñu gisee may sonn ci yow. Mhm. dañuy yaakaar ni alal moo tax. mais man alal fëkkuma man relation humaine mhm. li ma ci gën a sàmm mooy yëg gi ak cër bi nga xool jéey c' est mon frère sama waay la démb laa jógee këram ñu toog di waxtaane àdduna waxtaane wu ñu làmb leneen lañ doon waxtaane nga gis Pape Abdou Fall tey sama chambre à coucher bii man yor fii suma kër dañoo liggéey saison ba mu jeex xolom sedd mu yóbbu ma jojo meuble jox ma chambre à coucher jox max chambre à coucher jox ma télévision bu mag jox max margan télévision bu mag max mi ngi may dégg ba max naan ma dëgg-dëgg Pape Abdou mën a décorer <laughs> frère Max As et cetera mën naa leen lim ñoom ñëpp tous c'est des frères Pape Thialis tout le monde ñoom ñëpp sumay waay lañu parce que man Babacar sama principe mooy mhm. du ma tricher du ma naafeq mhm. du ma jay nit mhm. duma wax lu dul dëgg du dem kër kenn di ko tarbiyu lu may dundale suma njaboot maa koy ñaqal sama bopp moo tax fu ma dëgg fekk fa la may bàyyi mm-hmm. relation bi na nekk relation bu seen mm-hmm. relation bu nga xam da nga may jox cër ma jox la cër ñu may waxante dëgg maa yow comme ça ñu mel ni kon daal grand relation bi moom ak ñëpp macha allah rafet na maanaam ñu def ko sax heure bi heure waaw bu ñu ko defee heure couvre feu Babacar policier yi takk der yi du ñu sonn kenn du fa ñëw ñëppay toog seen kër seetaan seetaan fa bu ñu ko defee semi nocturne ginnaaw kenn du ko seetaani kay te nag wax dëgg yàlla lambi la lambi lambi huis clos moom man dey wax dëgg yàlla ànduma ci. donte ah. mbas mi moom fi mu nekk nii yàlla xam doy na. bari nga ciy moroom de. ay lamb wii ko la lamb ju amut public. kenn fa ah. ndax moom boo yoo ko ah, dimanche koy waxal. ah waay yow ngay ngay ngay reporté di <laughs> muy vibré ci gradin mbër mi tuus du <laughs> gis ko gis ko waxal xam nga mbër mu mbër mu dogali rek. njaab sa waay loolu bu jëlee ci làmb loolu xamatuma lu muy nuróol nag. <laughs> dara la. vingt mille places vingt deux mille places. waaw bu dee vingt deux mu def distanciation sociale takk masque yi raxasu. waaw ah, kuy ñëw yor sa sel indi sel yor sa masque ñu exiger loolu. jël alkaati yi teg leen ci kaw tribune yi ñu séparer nit ñi. ñu mën a def lamb waaye lamb ju amut kenn. kenn newu ñaari ponkal yu ngeem bu taxaw ci digg géew di léewtoo ñoom. kese loolu day gara Babacar loolu loolu. man borom ah. micro yi laa yërëm. Ah. man ak yow kay <laughs> yàlla bu mu nekk jamonoy sedd na. ah bu seddee musiba am la ñuy gën a dee bu seddee kay gara <laughs> yàlla def jàmm si réewum Sénégal <laughs> kontaan naa bu baax a baax vraiment ça fait plaisir tey toog ak moom parce que li tax mooy wala fa ko wax ku la jiitu ci néeg bu leen mu la fi ngay toogee te am na lu mu ñaraay te itam mu ngi koy partagé ak ñun ci masalam ubbeekoom ak yaatu xolam yal na yàlla defal la jàmm lafal la cat barkeel fi nga nekk tamit muy groupe E-Media parce que tamit ña fa nekk ñëpp vraiment ay liggéeykat dafa ne waaw tey c'est des sama idole bi dama koy di wax muy Boubacar Diallo maa koy nuyu bu baax baax baax di ñaanal ñi fa nekk ñëpp alaaji Ngañ Jaañ Mamadou Diouf yéen ñëpp daal yàlla na yàlla defal leen jàmm rek grand di kontaan ci yow bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf Babacar merci à toute l'équipe bi nga àndal jërëjëf.